الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi def suñu borom ñu ngi koy bàq di ko kañ ci tur yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nga xam ne suñu borom rek mooy ci ko jagoo ñu ngi julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ñoo ngi ñaan suñu borom mu dëkkee bët ci wàllum xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ci tawfiq suñu borom ak yërmandeem ak mbaaxam dellu si waat nañ ci suñu tafsir Quran al azim ci yéen suñu borom bu màgg bii nga xam ni comme ni ma koy baamtum ci jamono bu nekk maanaam ñu gëm yàlla amuñ wax ju ko gën a rëy amuñ lu ko gën a dëgg amuñ lu ko gën a jub mu yëg ni mbokk yi suñu defaru àddina ak suñu defaru àllaaxira ñu ngi aju ci gën a moy ci alquran ak di jëfe la ca nekk ci njàngale ak bàyyi la ca ne ci ay tere yëgal ni mbooloo jumtukaay yi ñu jàpp tey ni mooy tax dundu jag saxaaba yi amuñ ci woon benn loolu lu mat a xam la moo leen jumtukaay yi tax julli di jag ci liñ foog ñun yëgal ni saxaaba yi amuñ ca benn taabiroon yi amuñ ca benn te seen dund moo gën a neex suñu bos kon mbir mi kat nekkate yëfi xol la waaye nekkul yëfi poos kon nekku nit ñi di foogee moo tax la war nañ ay nit di toll ci nit ñëpp ci ngëm yàlla ak jariñu ci alquran bay méngale la ñuy dund dundug àddina ga lay waral baaga lañu naan buur yi de bu ñu yëgoon li ñuy dund dañuy ñëw xëccoo ko ñun ndax ñoom ñu nekk baaga la ñun ñu nekk buur laa sukka ni loolu mbir mu xol la xam ngeen ni kat loolu ku dund ngëm ak loolu sa dund mu tuut tuuti rek di nga xam loolu ndax ngëm day toll ci nit ki foo xam ni maanaam li nit ñi faale lépp yow doo ci faale ci dara alquran dafay fees sa bët ba jëleen wax du nit moom dootu la xamati topp nit ñi suñu borom da lay neex parce que da ngay gëm ni loolu ca la pexe nekk def ay terrain da lay métti même boo ko defee parce que da ngay wóor ni ci la alkali nekk tawfiq jooju nag ñu ngi ñaan suñu borom bi asmaa'il al-husna wa sifaatihil ula yàlla suñu borom de baaxee ñu defal ñu tawfiq joojee waaye ñu sax ci xàttan na kon ñu ngi nekkoon ci suuratu al-kahfi saar yi nga xam ne moom la suñu borom tuddee xunt mi borom bi defaloon ñu tawfiq ci mbaaxam ba ñu yegg ci laayey ñeent fukkéel ak juróom-ñeent tey ñu war caa tàmbalee bind tey bi nag ñu ngi ko gàtt lay doon maanaam ñaari aaya rek ñuy jël sabab si mooy dañoo gis ni aaya yi kat ay jàngale yu am solo mi ngi ci ëpp naa romb ëpp naa romb jàll kon borom bi subhaanahu wa taala bi wax ci laayey juróom fukkéel ak juróom fukkéel ak benn a'uudu billahi min ash-shaytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ñaar aaya yooyu moo nekk suñu bindaf tey ci tawfiq suñu borom subhanahu wa taala suñu borom subhanahu wa taala màgg mi ca kawe mi ngi ñuy nettali ci bind bi la nga xam ni mooy xew-xew bu yàgg boobu nga xam ne bokk na ci xew-xew yi njëkk a xew jiitu sosub àddina mu nekk diggante baay aadam ak Iblis ak sunu borom ak malaaka yi yëpp neen ànd ak man ni borom bi subhanahu wa taala daf bind ñetti bindeef yoo xam ne gën a bokk ci ak morom te loolu ñëw na ci xadis boo xam ni imaamu muslim ñu ngi koy nettali ci saxiixam su borom bi bind bindee bu ñuy tuddee malaaka malaaka ñu ngi ko bind ci leer xuliqatil malaaikatu min nuur comme ni ko xadis bi waxee am yeneen bindee bu ñuy tuddee iblis muy seytaane nga xam ne ca la sosoo kooku suñu borom mi ngi ko bindee ci ci tàkk tàkk safara min maarijin min naar am méreen bi def dinaa ci ñëwaat léegi am méreen bi def bu ñuy tuddee doomu aadama kooku mooy suñu cosaan borom bi subhanahu wa taala dama ko mën di bind comme ni mu ñëwee ci beneen xadis boo xam ni xadis la bu wér suñu borom dafa wax malaaka mi ni ko demal ci kaw suuf nga indi ma suuf ma tàkk ci doomu aadama te suñu borom lu mu defee ci ñun xanaa boppam la ba kun mu bokk rek mu sotti waaye sabab yi ci boppam ñun dañ ci mën a jàngee ko ñun la. malaaka bi ñëw ci kaw suuf dem ca ban ba ci bucca dem ca benn ba ci bucca dem ca jàngi ba ci bucca suuf su ñuul sa gannoos ba tefes ga xeeti suuf yëpp xeeti xonq yaag yëpp mu daal di cay bank ko bank te xadis bi wax Cheikh Nasr al Albani wér na ko li ñu ko indee jox ko suñu borom suñu borom daal di ci tàkk melokaanu aadama mu nekk soixante xasab aadama tëdd na mu tëdd yi noonu moo tax yéen ci yàlla daal salaam mu moo tax ngeen gis nit ñi mel ni ñu mel xam ngeen suuf si dafa am suuf su bon suuf su baax suuf su soxor suuf su xees suuf su xeereer suuf su ñuul suuf su nangoo bay suuf su bañ a bay defe naa tey bi yaakaar naa ne di nga ren di fa bay jàng ba defe naa baykat yi duñ fa bay lu tax parce que lu suuf su nangoo bay. kon doomu aadama yi ñu mel kii baax kii bon kii parce que dañoo fekk ci waat seen cosaan foofu nag fanaan ñu wax la iblis li tax mu mel ni mu mel dafa fekk cosaanam muy sama kon iblis borom subhanahu wa taala mi ngi ko tàkk di maari di min naar ci tàkki tàkki safara loolu tax iblis li mu gisee tàkki tàkki safara kat wax dëgg yàlla rafet loolu bi nga wax jëm kaw ci la daan di xiyaas moo tax xasanul basri mu ni ki njëkk a def xiyaas mooy gam-gam le kooku mooy iblis moo taxit nit ñi jaamoon jant ak weer bi ñu dañ koo jaaree ci xiyaas bi di gëm-gëm yi suñu waral mi ngi nuy fàttali kon ci bindat tey bii lu yàgg loo xam ni wala boog mi ngi nuy xamal sax bopp noo xam ni yàgg na lool te ñun fekkeewuñu ko suñu borom mu ni wa id qulna fàttalikul ba ñu waxee lil malaikati ñeel malaaka yi usjudu li aadam sujootal leen baay aadama wax naa ko kon ci baay aadama su ma ñëwee ci malaaka yi malaaka yi ci boppam ay jëmm lañ yoo xam ne suñu borom ñu ngi leen bindee ci leer du ñu lekk du ñu naan du ñu xiif du ñu mar du ñu sonn du ñu gëment du ñu mooy yàlla ndax xamuñu ko ba di bare lii mooy aqidatu ahli sunnati wal jamaa fi mu ne meluñ bi comme ni ko Sénégalais yi defee jël ab malaaka defee ne ko defal ko ay laaf muy naaw du yóbbul kenn kaaba bi dama ne bu amoon kenn ku ñu yóbbul kaaba bi yonent bi lañ koy yóbbul keroog ba ko yéegalee dee doo aj ci ren lu loolu daal bañ ne ko doo aj ci ba saxaaba yi mer ca ba mu digal leen wattu leen daal bañ ndax mer mu ñu mer ba gërëm aji yonent bi Umu Salama digal ko ni ko wattu rek nga dem gars yi dañoo mer ba moo tax gars yi wax dama ne bu amoon kenn ku Jibril di indil kaaba bi keroog yonent bi Jibril dana ko seet bi ko Madina defalu ko ko kenn duñ ko defal dam lay nax ku yaakaar defal lañu ko benn benn bi ci des moom mooy nit kuñ ci nit di wàcc ci doomu aadama yi comme ñun la waral ummu ayman doon jooy parce que dañu jibril ma doon wàcc ci malaaka yi dootul wàcc ci ndax yonent bi jibril kon ñëwatul ci kenn malaaka yi ñëwal nañ la waa badar lañ koy dikk nag yooyu ay wax la wax ay naxas ak ndam laa ci sagari seen am njëriñ kon ki ci des moom mooy ci nit suñu waroon wax malaaka yi usjudu li aadam sujootal leen maay aadam borom bi subhanahu wa taala bi mu defee aadama nekk ab test ci noonu tëdd ak tëdd suñu borom defal ko bakkan génni tànk nopp ak bënbën yi am yëpp iblis moom dafay ñëw xool ko xam ne lii yàgg yàgg yàgg yàgg am na lu ci nangu suñu borom ci jëmmi jamono rek mu daal di roo aadama roo roo ji borom xam-xam yi ñu koy xam ñu ngi tàmbali di fonctionner fii ci kaw jëm si suuf bët yi commencé xool gémmiñ bi commencé yëngatu nopp yi tàmbalee dégg dënn bi affaire yi di ñëw. roos nag comme ni ngeen ko xamee ba léegi moom tubaab yi xanaa technologie bi ñuy avancé avancé te it nag même bu ñu baaxoo fi leen koy bàyyi matala ñi moom matala ñi moom mën nañ koo réglé moom te duñ faat faatoo ndax bi loolu moom ñun bu ñu faatoo bàyyi ko fi kenn du ko réglé moom kenn du ko xam moom lii xarala yi ak yëpp moom la suñu borom waxoon moom la ci wax ba tey yasalunaka ani ruuhi mu ne xulul ba nga xam ne am na bi ko ko nekk bàyyi suñu mbiru boo xam ne la boolewu ci kenn aadama affaire bi ci fonctionné ba yegg ci ci dëgg yi ñu daal di li ma wax ñu ngi lay xadis bi mu gis lee suñu borom daal di koy yénki wala mu wax alhamdulilah suñu borom wax ko yarhamukallah mënuñ bi mu egsee ba ndigg li nag nga xam ne léegi li ko tàmbalee ci ndigg li ba ci jëm kaw léegi mi ngi fonctionné waaye lii moom ba léegi mi ngi mel ne ci ngay pikir yooyu nga xam ne naka pikiree buñ doon dóori maar ci boppam bi sax doo ko yëg noonu lay mel maanaam lii ci kaw mi ngi fonctionné li ci suuf yënguwul foofu mufassirin dañuy wax ne li tax suñu borom dafa ne xuliqal insaanu ajuula nit dañ ko bind ñu yàkkam ci noonu rek aadamaa ngi góorgóorlu ngir bëgg am ci moom ñuy yéegul moom fii la yem tànk yi daanaka normal bi waaye ñu ngi góorgóorlu pour bëgg a jub dañuy xuliqal insaanu ajuula ak xuliqal insaanu ajal nit dañ ko bind ci ak yàkkam ci ko nit dafa yàkkam ci ñu ngi suñu borom dimbali kon suñu borom yi bi ma waxee malaaka yi usjudu sujuuda leen li aadama ñu ne aadama léegi aadama bi mu jugee suñu borom dafa wax malaaka yi lii gis ngeen ci suuratul baqara fa la gën a yaatoo waaye ñoom ñoo ko tënk suñu borom dafa wax ak malaaka yi ñoom damay sàkk xalifa ci kaw suuf malaaka yi comme jinne leen di ko sàkk ñëw ci kaw suuf di yàqaate di naan ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa ndax kuy tuur dara di yàqaate ngay wàcc ci kaw suuf suñu borom dee inni a'lamu maa laa ta'lamuun xam naa ne ngeen xamul li mu tàccee bàyyi aadama aadama jub moom la dara def xalifa mu ñëw ci kaw suuf si ngir di ko taxawal ak jaamu yàlla soo borom dañu mboolem malaaka yi usjudu li aadama sujjóotal leen aadama foog nag am na benn xaw benn xaw sa yi bu ndaw moo xam ne ñu bokk ci bind bi tëmbal ko ci jàll dana baax lool lan moo tax mbokk yi malaaka yi sujjóotal aadama wala ci ci jël sabab boobu la ko suñu borom jaarale suñu borom dañu malaaka yi ndax xam ngeen nangam ak nangam ak nangam ak nangam malaaka yi subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa ñun de xamul ñu dul loolu xamal suñu borom ni aadama am bi um bi asmaa'ihim wax leen lii la tudd aadama ne lii mooy lii lii di lële lee di lële fekk suñu borom xamal na ko tur yi wa allama aadama al asmaa kullahaa ba mu paree suñu borom ne usjudu li aadama kon ci teraanga di xam-xam lillaahi aleykum fan ngeen ba seen dégg ci kaw suuf teraanga joo xam ni wéy ba ba toll ni malaaka bi ne sujuutal kii ñu sujjóotal kon lu lu am xam-xam moo tax gis nga xam-xam ni mu fa waree moo tax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom day laal laatu malaaka fi nga xam ne day jóg di sàkku di xam-xam muy jóg di ca kawam lu xew ndax yàlla laa kontaan ci ñoom est-ce que loolu bu bu doon amuñu benn texte bu ñu dégg ci sàkku xam-xam bu ñu biiree damay wax ne doy kon ñu ngi lii mooy sababu sujjóot sax wallahu a'lam suñu borom wax malaaka yi sujjóotal leen aadama malaaka yëpp fa sajadu ñun ñëpp ñu sujud illa iblis ba mu des iblis kaana min al jinni moom daa bokkoon ci jinni yi aaya bii benn la ci alquran nga xam ne dafa indi illa iblis feeroon aba wastakbar waaye illa iblis kaana min al jinni fii rek la wax ci alquran te bii mooy tegtal bi gën a dëgër jërul soxla leneen boo xam ne iblis kon du malaaka ñu ne ñu wute iblis malaaka la wala jinne la wala nangam aaya leer na borom xam-xam yi ñoo xam ne ida warada al asaru batala an nabar fekk saa bu rotee gis-gis daaw illa iblis a des iblis kaana min al jinni moom dafa bokkoon ci jinni yi fa fasaqa mu daal di génn topp defu caay caay an amri rabbi ba lànk ci diggal suñu iblis ci jinne yi borom bi subhanahu wa taala sàkkoon na bokk xam ngeen ni comme ni ko borom xam-xam yi waxee kaw suuf suñu borom sàkkoon na ay jinne iblis ñu ne si yàqaate tuuraati dara loolu la malaaka yi xam moo tax ñu wax suñu borom lañ ko wax iblis nag ci góorgóorlu ci jaamu yàlla melokaan wu foo ko takk romb la ci ton commencement laay wax di jaamu yàlla xam yàlla gis nga xam li mu xam yàlla moo tax iblis li muy saay saay saay saay bu jin jotee di jin ci ko bi yàlla parce que xam nañu loolu bokkaale subhanallah mbokk xoolal bandi bi iblis bandi bii nga xam ne bandi yëpp ñooy seen maam di seen dajaay di seen yëpp moom sax xam na ne kenn waratu jin ci ko bi yàlla bi jin jotee dañu ko war a am siis ah gis nga fa bi izzatika gin naa ci sa tedd yàlla mais iblis mën naa gis ci keneen ku dul yàlla waaye iblis li muy bandi bandi bandi xam na ni kenn du gis ci ku dul yàlla waaw fa koy doon kenn ku gis ci ku dul yàlla. iblis kaana min al jinn dafa bokk ci jinn yi jinn su baax di góorgóorlu ci ay jaamu yàlla ba su borom yëkkati ko mu yegg ci darajay malaaka yi maanaam ah nekkul malaaka waaye mu ànd ak malaaka yi ndax loolu suñu borom su ko defalee ab ab ab nit. dëgg yàlla tamit sax du wax nga xam ngeen jaajëf si Abdullah Jaara bi mu faatoo yonent bi ñëw na alayhi salaatu wa salaam ngeen déggal kële saxaaba Jaafar yonent yàlla bi alayhi salaam mooy doon nuyu doomu Jaafar dañu xam ne see yéen doomu waa ji nga xam ne day naaw di ànd ak malaaka yi ndax yonent yàlla bi nee na suñu borom dafa def kal bàyyi jaabir ñi ko waxal lan nga gën a bëgg ma defal na ko bàyyi jaabir ñi ko xeex ba li ma jugee ñu bàyyi ko yonent bi alayhi salaam laa bëgg a delluwaat ndax li ma doon def dafa neex suñu borom bi waaye loolu wax dëgg yàlla moom nekk loolu suñu borom daal di koy defal subhaanahu wa taala mu am ay naaf di ànd ak malaaka yi yéen si yàlla day toog ak xam yàgg na ñu fay leen papay jaabir ñu ngi noonu ànd ak malaaka yi loolu am nit la di Abdullah ibn Haram moom laay wax mbokk yi ni moom lañ suul ñeent fukki at noo ko Amr ibn Jamuh keroog bi ñuy sulli armeel yi benn picc dafa dal ci ab loxo ñu xool gis ñu génn def di naaj ñeent fukki at ginnaaw bi moom ak Amr ibn Jamuh muy waa ji bi doon soox ñoom ñaar ñoo nekkoon ay xarit bi ñu faatoon ñu suul leen Jaabir ibn Abdullah nee na toog naa juróom benni weer pour man daal ñoom suulle woon bàyyi xaaram sulli waat leen nee na ma dem sulli sama bàyyi te dara la si kut ci moom ginnaaw juróom benni weer lu dul catu mapp daal la am tuuti yàpp yàpp ci am juróom benni weer kon yooyu ay gëneel la yoo xamante ni yàlla dafa mën kon iblis dafa nekkoon ci biir malaaka yi waaye borom bi subhanahu wa taala su jóotal leen aadama ah léegi cari cari daal di koy dugg ba fa sax am loolu ñaari jàngatam yi yëpp yëpp ñëw na ci suufu kër benn bi contraire bi ci des xaj li muy dolee di dolee di ba nit ñi kenn bëgg koo jege kenn bëgg ko ba mu góorgóorlu ba ànd ak ñu baax ña dañ koy limaale ca ñu baax ña bu ñu nee salaasatun raabi'uhum ñu ne kan iblis li mu doon baax baax baax ba tax mu ànd ak ñu baax ña ba mu gisee boppam dañ ko daal di dàq mu dem ci biti moo tax gis nga boo góorgóorlu sa góorgóorlu bopp doo dem mooy xadiis ma leen waxoon yéen ci yàlla mu ne képp ku sàggan ba say jëf tax laa tardé saw askan du la tax a dalee képp dafay jëf tax a dara te taw askan bi la tax a demee iblis alayhi laanatullahi mutadaabi ala yawm alqiyama suñu borom bi ko sujuutal mu daal doon xisa bi ko ñëw ñëw suratul baqara ñëw ko suratul araf ñëw ko suratul saar yi ñëw lépp béy ci biir suñu borom ni iblis sujuutal iblis nag li tax mu koy mooy dafa jàpp ni ana xayru min su demee suratul soor suñu borom dañ ko sujuutal mu ne ko du ma sujud lu tax doo sujud lu tax Xasan al-Basri wax laa axada asbara ala Allah yéen ci yàlla mën a wax loolu mu ne laa axada asbara ala Allah yàlla da koy dàq koo mën subhanahu wa taala maa xam ne nit ñi toog jiw ko toog te mu am kàttan ci léegi léegi alal leen ba pare bàyyi leen kon kenn dàq la nit ñi borom subhanahu wa taala waaye lu tax léegi suñu borom ku jub jaraw léegi man dina yow daa xamante ne dañ ciy jàng maanaam nit ki su fekkee ni dafa am lu mu bañ waxtaan na leen moom amaan na ne convaincre xoolal suñu borom subhanahu wa taala ñu ko manqué waaw ma manaaka an tasjuda limaa xalaqtu bi yadayya lan moo tax damay sujuutal li ma bind ci samay loxo man suñu borom astakbarta da ngaa rëy rëy am kunta mina al-aaliin wala da ngay kawe kawe dafa jàpp ne yaa subhaana mu ne ko ñaar yëpp ñoo yëpp ñoo mën a ana xayrun minhu kii maa ko gën xalaqtanii min naarin yaa ma bind ci sawara wa xalaqtahu min tiin yaa ko fàkk ci ban kon maa ko gën kon naa ko yàq moo tax saay saay bu bon boobu bëgg ñu xam ko bokk na ci li tax ñu ne dañu gàttal bind bi ci ñaari taay yi Iblis lan moo tax mu lànkal daay aadama rek soo si juutal iñaan aadama lan moo tax mu sàggan ba lekk ca garab gi ginnaaw dogal suñu borom xin Iblis dafa añaan parce que sujootul gi ñuy sujootal aadama malaaka yëpp di ko ko defal te moom bërki dem bi ñu koy bind fii la ma fekk ah bu jeexee ñëw ba lépp ñu fan la seet maanaam la gaa ñaan ci loolu ay kii bërki dem bi ñu ñëwee ñu fan la seet entre sëriñ gaa yi commencé dugg ci sëriñ bi aadama bi nga xam suñu borom nee na sujootal leen ko malaaka yi di ko sujootal iblis daal di añaan ndax mu laxal jàppal na boobu Adama alayhi salaam suñu waral ni ko duggal àjjana lekkal ci garab yëpp ba def benn garab bul ko laal Iblis ñëw ni ko ah xanaa la dee nga rek naan man takkiwul saytaane man la def day yërëm tëloo yërëm tëloo ba nga jàpp ne kii moo la yéene àjjana fekk ngaa ko dina tàbbi ci kër yi xanaa ma dégg la ñaari baat rek est ce que xam nga yàlla loolu tax mu nekk ci yàlla ba léegi mu ko dee mu ne ko yàlla daal lekk ci garab bii mu lay teye ndax garab yi boo ci lekkee da ngay lekk buur te doo dee mu ne ko solo yàlla lekk moo tax mu nekk buur xool wax du bon ji rek ah xam nit ñi nekk buur ba faaw dafa neex tey nguur bu dul jeex dafa neex ginnaaw ba doon suñu aadama daal di lekk sa garab ga ndeysaan surtout sa xawee kon lan moo ko tax a lekk sa garab bi xëy Iblis bi Nuux alayhi salaatu wa salaam daal defaree gaal bi ba yéeg Nuux dafa xool xool xool gis màgg moo xam ne kii daal bokk ci gaa yi mu ñëw ba ci moom toll ko hé yow la kat mu ne ko man la waa bi nga xam ne damay fexe ba jëmm yi yow la ñuy àndal waaye xol yi man la ñuy àndal ni ko kon yaa Iblis gis nga xol yi ci xol xol bi la soxla jëmm yi yow la ñuy àndal waaye xol yi dina fexe ba ñu ngi ci mu ne ko wàccal daal ni ko kaay ma wax la juróomi juróomi ñi ñoo xam ne ci laay naxee doomu aadama yi waaye juróom yëpp di ma la ko wax na ñett yi laa lay wax bàyyi ñaar yi suñu borom ni ñu wax déedéet bul soxla ñett yi na la wax ñaar yi dégg nga mu ne ko juróom juróom ñi ñoo xam ne ci laay naxee nit ñi waaye di ma la wax ñaar yi ñett yi rek laa lay wax suñu borom ni ko ñett yi soxla woo na la wax ñaar yi ngay mën a ñu xam ci kam tee ko ne ko gis nga ñaar yi lan la muy xir ndax xir ci laa naxee woon aadama ba génn àddina beneen bi ci def mooy añaan mu ne ko añaan moo tax ma yàqule li tax ma yàqule aadama yàqule ci xam na ne ñaar yi buñ ci yàqal nga yàqule léegi ni kaccoor bu bon la bari bi boo xam ni naxalbibillah iblis borom bi subhanahu wa taala daf ko may capacité muy daw ci doomu aadama comme ni direct di dawee inna shaytan yajri fi ibni aadama rajula tamit yéen ci yàlla dafa teex ci kàddu ci jàkka bi génn ci guddi gi ñaari saxaaba romb ko mu taxawal soxnaam su ko doon andil reer saxaaba yi gis yéen bi rek waaw waaw mu tàng dem yéen tamit ala yëpp mu ay kaay ñu ñëw yéen tamit leen kii ma taxawal sama soxna saxaaba yi daal di jooy ñu ko yéen tamit leen bu ñuy ñaaw njort ci kan ku xalaat ku ne dinañ ñaaw njort mu nekk yow ne leen wóolu naa leen waaye iblis naa wóolu ndax iblis day daw ci yaram comme ni ko la waxee wax xadis kon loolu iblis mën naa soppee foofu la bokk ci digg yi ngay jàng day soppee mën naa soppee ko ba dugg ci sa yaram li ma war a njëkkal yaram dépassé ko mooy différence bi ne ci diggante iblis ak iblis ak seytaan bu ñuy iblis moom mooy fonkal na maam ña lim jur yépp ay jinde leen ci biir jinne yi dafa am ñu baax ñooñu la ñuy tuddee jinne yi am ñu bon ñooñu la ñuy tuddee seytaan iblis mooy maam ja lim jur lépp nag ay jinne lañ ci biir jinne yi am na ñu baax ñooñu ay jinne yëpp am na ci jinne yi ñu bon ñooñu ay seytaane ya wa am naa ñu mel muslim yi loolu ñu am sama nas la wax ulaay rek xaw mu jeex masala mu jàll iblis dafay daw ci yaram xaw ni deret di daw fii la gën a soxla na xaw xol la gën a soxla ndax mooy capital bi nga xamante ni bu guerre amoon moom wax dëgg yàlla xam ne ni yéen a gën a xam dëkk yi guerre bu guerre ba gañe capital moom ay jeex gën ba ko tànn tëcc bi dina nelaw moo tax fii lay fexee gañe ne min sharril waswasil xannaas day la gis nga bu ñëwee bu nekkee jaamukatu yàlla tijji tijji tijji tijji du mën ci yow dara dinaa wax mbokk yi iblis ku bandi la ku xam technique yi tànkaay la gis nga bu ñëwee xàcc na dóor la ci kanam daanu la day dikk ci ginnaaw dóor la boo daanul mu xëccee mbay jaww boo daanul mu xëccee càmm soo daanul da nga ne day jeexal na jeexal na ko ne day jonkal fii di xaar xam nga lu muy xaar nga mer mbaa nga sonn mbaa nga jaaxle mbaa nga jàngaxe loolu yëpp dañu ci nekk problème soo xam taf lay def dugg moo tax dugg booy góorgóorlu ci ay ibaadaat ngay wut ci moom bis day ñëw ak bis rek nga sànqal sànqal ci mbaw la ñuy dugg ci wala ñu fàtte ne sa ak garab yi demee noonu rek ci bu la songee bu la karwaasee rek la ngay daan gis moo tax foo toll nga di ko bàyyi xel tey bis ci moom ndax yàlla rek moom ci ñu beneen bi jëlee mooy iblis ndax iblis ak njabootam iblis ak iblis xamaa ak sax bi ñoo wuryeetam comme li ñu waxtaan boo leen ko am na njaboot ndax njabootam bi ñoom ba ñuy takkante comme ñun ñu ñuy takkante ñu ma tegtal bi ci ñoom gisul bu wér bu wér bi kat ñoom ñuy takkante waaye daal am na njaboot am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne donte loola ci israiliyaat yi ñu am na ñu wax ni ci projet lay jooram moo am awray góor ci projet sàmmale moo am awray jigéen ci la jeex dafa leen jeex loolu nag jagoo ko jóg am na ñu ne déedéet dafay nen ay nen te nen bu mu tos tam bu ne juróom-ñaar ci seytaane dana ci génne loolu nag borom xam-xam ñoo tax maanaam la xaar tegtal bu ñu gis bu wér ginnaaw gëstu bu ñu def gisuñu tegtal boo xam day wane ñoom day am dañuy amante ay jabar ci doom ak naan waaye daal li am mooy am nay góor am nay jigéen tey am nag njaboot ci nit njaboot bi yëpp yàlla doon saaf iblis fi ne nii màgget na li ci benn île boo xam ne ndox la ñu gën ko yàgg ci kaw saa su xëyee day woo njaboot bi di leen kaay ñu jaar gauche ñu jaar droite ñu dem Afrique ñu dem Europe ñu dem Asie fenn fu nekk waaye dem fa pour yàqaat kii day ñëw ne ko fexe naa ba nit naan sàngara mu ne ko ok jërëjëf sama xëy baax na kii ni ko fexe naa ba li mu tàcc bi jërëjëf sama xëy baax na keneen ñëw ni ko fexe naa nag ba tàqale jëkkër jabar wala bàyyi doom wala ila axiri kooku la seytaane yëkkati toogal ko sa palaatal ne ko yow la yàlla jiw di kii kon li mu gën a bëgg mooy yàqaat mbaa xam ngeen ni bokk na ci sunna nit ki bu takkee soxna mu jindi ñaari rakk xam nga ñaari rakk yooyu ko sabab si mooy seytaane bis bu ñaar takkantee surtout mu gën yàlla nga xam ni ñoom kenn ku nekk nga war a nekk pour dimbali sa morom ci jaamu yàlla ndax di nga xamal ne moom la kenn suuf la iblis day ñëw pour yàq si moom su ko defee sunna daa jàngale bu soxla si liggéey ngeen julli ñaari rakka ñaan gënoon ni ñaan ak ñaari rakka illa bi mooy ngir seytaane mi doon ñëw di tax soxla si ban la dootu la bañ a ci day ñëw am lu mu def ci xolam te ba tey ñu ngi liggéey ñëw léegi technique bu garaaw boo xoogut ni am na ko rek am na ko yàqal jaam yàlla gis nga mën naa ñëw gént loolu gént jigéen ji mën na tëdd ba guddi gént lu bon ci jëkkër fekk xam ngeen ni gént xol ko ci soo xale xam loolu ci xale am xol bi la seytaan gént boobu nga loolu ci en lay mayal gént loolu lu bon ci sa jëkkër loo xam ne boo yeewoo automatiquement li ngay jëkkër ci nga bañ sa jëkkër fekk li ci indi mooy njabarkat yi nga xam ne iblis mooy seen bàyyi ñoom li ñu gën a baax bëgg mooy yi faral di bay la marki ba taw ci ci sa biir di yor jabar ji ñu ko tàq. gis nga iblis alayhi min allahi laanat mboolem kuréel yi nga xamante ni ñoo koy tànn iblis moo leen dikkal dañ sàmm te foo foo wut nag dana la fa dikkee benn borom xam-xam nee na bu dikkoon ci suñu mbooloo ñi tey ñu bëgg bëgg tax suñu jotaay mu tax ko tax ñu ko tax xam nga lu muy def day def fekk mbooloo may mooy yàlla mu soo filtre leen ba ñuy xeex di dóorante ay wàll su ko defee ñu par force mbooloo bi tax ndax dinañ di xaar loolu dafa ko ci neex moom moom nee mu filtre ba ñuy xeex su soog mbokk yi xool jiit caay caay ñun yàqal na mënu mënu yàqal léegi day dem fekk ma leen mbooloo may mooy yàlla ñu filtre leen ba ñu xeex xam nga lu jublu ca xeex ba ngir ñoom bu ñu xeexee ngir ñun ñu tax suñu mbooloo bi jublu àtt bi lañu ko def mbooloo dina di ko fekk ngay jaamu yàlla ñu ne moom xeew sa gis dañuy dawaay yow dañuy gisal rek amul ñu def mbokk yi ñoo ragal gisal waaw ban dëgg la am na ñu di war a def gisal ay yow saa da ngay gisal rek sa yii sa sa alal ji nga joxe da ngay gisal rek sa jàngale bi ngay jàngale da ngay gisal rek su ko defee mais da toog kër gi ah damay gisal ko jërëjëf mais ñu may gàtt fekk ñu leen gisal ko de ibnu Qayyim nee na Iblis dana la dikkal ci jaamu yàlla fekk ngay jaamu yàlla ci mu dina xiistal ci da ngay gistal ba tax nga bàyyi la ñu ne bu ma xaar defal li ngay def ndax al amalu li ajli naas li yaaqul wa tarkul amali li ajli naas shirk fa huwa aqrab def ngir nit ñi loolu mooy gistal waaye war a def ba pare bàyyi ndax nit ñi boobaa gën a garaaw muy gën bokkaale yàlla xoolal loolu war a def ba pare nga bàyyi ngir nit ñi Iblis dafa feeñ yonent yàlla Zakariya Zakariya daal di koy laaj ñi ko war yëpp fekk ñu yaram ñu ay buur mu ni ko wax buur yi nga yore mooy lan mu ni ko buur yi moom moom laay yeewee doomu aadama yi mu ni kenn ku ci nekk xeetu mbaal bi ma lay mbaal mu ne ko man am naa ci gor mu ne ko wax ah waaw daa mel ni de mu ne ko man moo ci daa gos mu ne ko benn bis da nga doon reyal mu dina xiital ci lekk dina neexalal lekk bi day lekk ba lekk lu ëpp la nga si jubluwoon mooy sa biir ñett biir guddi gi doo ci guddi gi yàlla Zakariya ne ko ah kon baax na Zakariya ne ko kon giñ naa ci yàlla dootuma suurale ci sama biir ma xaal Iblis ne ko mooy giñ naa ci yàlla dootuma conseillé ci kenn fexe bu na ko def gis nga waxtu waxam dana la dikk fekk ngay jaamu yàlla mu dikk def sa suuf di ëf di ëf ngir nga jàpp ne yow mii nga ko jàpp daa topp ngir yow julli mbooloo bu ko am bu am julli mbooloo mu bëri dara moom bu la jëpp tëjee boo daanoo baax na boo ko tasaloo baax na bu rëcc baax na boo demee baax na lu ko jënd ñor ko bëri dara yéen yàlla mais bu loolu amee pour ko faale bàyyi nga keroog ngay dégg ab baar muy wane ne lii kat génn na ci yow wala xet mu wax lii kat sa jàpp yàq Iblis dina dikkal mbokk mu jigéen mu fekk ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla lool ndeysaan jàmbaar Iblis ba ko yàqal xamu ko xam nga damay def day dugg ci biir gi mu këdd benn sinis pàcc ko bu ko pàccee deret gi génn ci ndaw si tout temps loolu la ñuy tuddee istihaada muy njàmbar borom xam-xam fekk yi xam nañ xam nañ xayda mooy gis mbërëb règle xam nañ nifaas mooy gësin am na beneen bi ñu tuddee istihaada boo xam ne dafay dal jigéen mooy deret gi génn pàcc yi xam nga li ñu dugg li ñu ci dugg mooy am na lu tàggat boo xam ne jàpp ko dindi wala ko fekk si léegi ko wax ndax istihaada bi beneen bi ci des mooy dana jàpp ne kon borom kër mënta ànd ak moom ci sa xankay mën naa ànd ak moom kon mën naa dem jàllal ci feneen beneen bi ci des mooy gis baax yu doon am par weer kon day tóot nay am léegi sax ko danaan dootul xàmmee ci aadaam su ko defee tey jaamu yàlla yàqu loolu la ci biir moom. Iblis dana la dikkal ci biir julli gis nga saa boo kàppaale di julli rek yegg si li mu bëgg mooy jax daxale ba nga yàq julli moo tax ñun daanaka ñun ñëpp moom dañuy julli ñu ngi ci jàkka ji moom dëgg yàlla waaye suñu xel yàlla na tëx loolu moom jigéen ñeeg góor ñi ñëpp ci bokk la da ngay julli léeg-léeg sa xel ñi sa waay jël na fi Dakar dem fa Sandaga jënd fa ay Dakar jënd fa te lépp lu ci mucc ay yaa ngi ci biir mën nga fay dem marché jënd fi ay yére jënd fi ay dàll yu gaale ko yëpp ci fekk yaa ngi ci biir moo tax ñaari nit mën nañ taxaw di julli ñu sëlmal diggante kii kii ci soriyante ci ay tiyaar ba toll na ni asamaan ak suuf ni ñu soriyante iblis nga dikkee ci biir julli bi lu nekk la lay xaar noonu benn borom xam-xam dafa toog di jàngale la ñaar benn waay jëkk ni ko dama am problème dama amoon xaalis bu bari denc ko xamatuma fu ma ko denc affaire bi jaaxal na mu tiit lool borom xam-xam ne ko da ngay dem ba julli ñaar rakk ni sell concentré boo paree ni waa ji dem jàpp kabaar bi mu ne am loolu akbar day commencé concentré wu xelam dem ci da koo gàttal ci kaw liggéey bi mu nag julli mu nag julli bi mu dikkee wax ko borom xam ne da loolu laa xamal iblis ku la bàyyi ngay ngay ngay ngay ngay sàkk am na suñu benn mbokk rahmatullah war na yàlla yërëm ko moo tax nekk benn xam ne kenn jëkk dafa am waa joo xam ne pënal lan dafa pënal mu ne mu am benn bis bu buggee wàcc ni ñu wàcc am ku defaral ba jël xaalis bi yóbbu ci poos fàtt benn bis ñu julli bay taaya teg nii loxo di taaya def xaalis te li nga problème mu xaalis moom suñ daawee ci lañuy seetaan bi yàqale léegi mun nañu xaalis automatiquement léegi lii dugg ci dëkk léegi mi ngi taay léegi taayaat te lii waa daal loolu am la moom mbokk ba nga xam ne xamatu lu ñu xamatu lu ñu muy xalaat muy xalaat muy xalaat te taayaat léegi léegi moom xaalis jëm fan la jógee fi mu affaire bi dem ci bopp bi ni xaalis bi nangam la ci la soxla bi ñu wàññi au lieu que moom asalaamaaleykum wax ci pour nga defee mbokk nga nekk na effectivement def nga mbokk nga def liggéey pour nga defee def nga xool jël ma lu gis nga ibli yii pour moo koy dina yàq dina dikkal doomu aadama ji ci melokaanu nit pour yàqal gis ngeen keroog madal Iblis dafa nekk moom comme xamul seytaan dikkal leen bi ñu leen dikkalee fekk gars yi ñuy daje pour dan la ñuy def ba arab yonente bi alayhi salaatu wasalaam Iblis daal di ñëw yow yar di sukkandiku mag ak mu bon bi mu ñëwee gars yi ne ko yow yaay kan ma ne maa ngi dëkk ci ginnaaw dëkk bi damaa déggoon da ngeen di fexeel yonente bi ma xam ni kooku moom jara fexeel la ma jëm pour dimbali kii ni dañuy tëj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di doyale boobu baaxul de keneen ñu ne ko nangam ko ni boobu baaxul ñun yow ñu ne boobu baaxul comme du baax mu ne gis nga Mouhamad dafa amee mbokk pour yéen gis nga ñun say taay mu ne gis nga ñun ko dëgg ba pare ko yéen ñi ko lay dañuy doy xam nga noonu rek su fekkee ñaar fukki famille ñoo fi nekk famille bu nekk dañu ciy jël kenn nit su ko defee moom ñooñu bu ñu rayee ñëpp la ñax ñoo bàyyi nga xam ne mbokk Mouhamad dañu mën a alal ñëpp ñooñu xoolal politique yi ñu say taay te gars yi loolu léegi maa ngi rafetlu ñu génn lépp waa Ndiaye indi kenn waa Ndiaye indi kenn waa Faye indi kenn Faye bu nekk ci dëkk bi indi kenn ñëw na ñooy song na wax na rey ko su ko defee bu doon police la police dikki la waa dëkk bi ñu joxe xëy na lu tax a def waa dëkk bi ñu jox ko def Iblis ma joxe pexe boobu gis nga keroog Badar dafa dikkal yéefar yi ñu leen man maay Suraaqa ibn Maalik dama leen di dimbali dama leen di nangam ba gars yi di bàq ndax Suraaqa comme kan la woon waaye Iblis bi mu génnee seen malaaka yi wàcc ci alxem ci benn ak mu sant bu xew gis nga loolu suñu borom dañ koy nit ci suuratul Anfaal comme Iblis pexem mu nekk dana ko def pour yàqal doomu aadama ci ay jaamu yàlla ci ay biir lépp loolu nag nit ki bu ko xamee li war mooy mu daal di tàmbalee góorgóorlu diggante ma borom dafa jaamu kat yàlla sax mu ci moo tax maa ngi leen di wax benn téere boo xam ni xamaguma ci téere yi ahlu sunna téere boo xam ni mi ngi wax ci fànn bi gii di waxee ba kéemtaane ni moom imam bu mag moo ko taalif bi ñuy wax Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi imam bu mag la Abul Faraj Ibnul Jawzi boobu ak Ibnul Qayyim al Jawzi la ci Ibnul Jawzi la Abul Faraj Ibnul Jawzi dafa taalif benn téere su dee ko talbiis Iblis mooy technique yi Iblis di jaar ba nax nit gis nga téere bu boo delloo moo leen koo doon ci nit ñi boo ñëwee Iblis lu muy def ba jaamukat yàlla yi yàqule lu muy def ba bidaakat yi yàqule lu muy def ba jàngkat alxuraan yàqule lu muy def ba nongokat yi yàqule lu muy def ba imaam yi yàqule lu muy def ba ndongoy xam-xam yi yàqule maanaam dama la ko wax ni dama la mbokk yi ba ne leen consultation ku ko bëgg def ci kan mooy Iblis fu mu lay yàqale yoo demee ci téere bi di nga consulté ndax façon médicament boo soxla ma ba maanaam yow da ngay ñëw taxaw ñu ne yow yaay kan nga ne man noppatal laa ci jàkka ji am na benn lu boo xam ne bu ñëwee sa noppatal yi ñu leen di yàqale ay kay comme yaay noppi kay fexe na ngay ñeexal sa fànn kay ba kay xam ne yow ni kat gis nga taal boobu ci loolu lay jaar taal yi mel noonu moo tax nit koo mën a doon boo yegsee mu wax la moom fa ngay jaar moo tax amul fara jógi leen jaw si ku ragaloon yàlla wax imam ju mag la moom yàlla da ko mayoon tawfiq yi fasaaxa mën a leeral li muy baax doon na wax ne lépp dikk ci lislaam sama loxo ëpp nañ ay téeméeri téeméeri nit yi nga xamante ni moom dañ doon def ay mooy yàlla déglu waaraateen tuub mu ëpp di teg lii dara wax ne yow yàlla su àllaaxira buñ dajee ñun bu mu di maa ngi ñaan nga yërëm ma waaye bu gën sax boo ma ko dee def làq ko nit ñi balaa ñu naan kii mu doon jindi nit ñi yàlla koy mu ci gën a jëloon si moo la wax loolu moo tax ñu tuddee boobu gis nga téere boobu boo ci demee mi ngi leeral technique yi nga xam ni iblis da koy jaar ba yàq nit ki xool jaamkat yàlla nga defee ni mucc la déedéet xam ngeen ni yéen a ngi jàng si kamasali cheytaani id qaala lil insaani imaam yi ay ay ay ay tafasir dañuy nekk ni dafa am benn waay boo xam ne ab labbe la woon jaamukat yàlla bu mag bu mag sax lool jaamukat yàlla bi nekk ci ab maanaam di jaamu yàlla am ñetti gaal yoo xam ne ñoom dañoo bëgg a dem xare te benn rak bu jigéen lañ am te amul pour ko batale ñu ne nañ ko jéem ko labbe labbe bi bañ ci déedéet man kay jigéen moom doy ñu di ko nastaan di ko convaincre ba mu xam di jël ko ndaw mu ne xanaa ngeen defal ko mbaa sëriñ sa dama sori waaye defal ko mbaa mu sori iblis daal di ñëw mu ne xaaral ma ne teg teg kat kéemtaan bi mooy gis ngeen iblis yàkkantiwul dara dara gis nga noonu islam yi ni ñuy def nga xam ne projet boo xamante ni pour jullit ñi buñ jàngat ak faat waaye nan ko jëm fii ba ay at na sotti baax gis nga am na yaa ne quarante cinq ba gars yi kër yi ñuy dund tey xam nga ni ña ko doon tere ñoom xamoon nañu duñ ko fekkee waaye na réussir rek mbokk yi ñun la ñun jullit ñi ñun noonu dañuy wax naan njëriñ la fekkee ñun di mutuelle l'islam dara te yow yonent bi nee na même bu àllaaxira doon taxaw fekk yaa ngi jëmbat garab sax bul bàyyi àggale dara du ko fi jëmbat lu bu la ko wax ni yow fekkee naa ko du ma ko fekkee dinaa ko jëriñoo si réew ci seytaane ñoom daal di fekk waa ji mu bàyyi leen rek laajte bi saabu toogee nañ ñëw wuute buntu rek tegal fu def du mën ko sax gisante ak ndaw iblis bàyyi ba mu am ay weer bu ñëw ni ko waaye lii ngay def moom rafetul kenn yow nit nan la ñu koy dénkee bu nekk fii moom wéet du wax ak kenn bu bu yàggee mbaa bu fan bu jar ba dee góor gi ah ma ne wax nga dëgg mu ne kon sax boo dikkee ne ko salaamaaleykum sa añ baal boo sax di def bëri suñu ko commencé bu ñëwee ne ko salaamaaleykum sa añ baa ngi doon ci buntu bi def yoon ndaw si ne ko jazakumullah xayr jël andi dugal ci mu toogaat am biir moom yàgg iblis ñëwaat ñu ko ah xam naa def na jéego bu rëy de waaye yow salaamaaleykum waaleykum salaam loolu moom buñu bind moom xanaa jéem jéem ñun bi da yàggee dana yàqu doo waxoon moom boo dikkee dañ koy laaj na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm mbaa wax wax mbaa yàqal ñu commencé jàmm sant mbaa yaa ngi ci jàmm mbaa nangam jàmm nga fanaanee ah kii yaa ngi doon doxul xëy na sama soogam yàgg ma ne ko yow sax nit moom nit dañu nekk ni ko ay waram di waxtaan mu ne ko même bu ngeen dee waxtaan yow bul dugg sax ci néeg moom dañu wéy kanamam duñu nangam nga toog loolu nga yow nga toog ci buntu bi ngeen di waxtaan benn par benn benn par benn benn par benn ba ci benn bis rek seytaane xiital boobu dugg ci biir néeg bi ca la njaaroon ndaw ñun njaaroon ndaw sa doom daal di ciy judd iblis ñëw ne ko gis nga ko def man de lii rek moom wax dëgg yàlla saay pexe la waaye nag ñi ma def ba nga yàqule mën naa ko defar ba nga baax la mu ne ko nu may def mu ne ko da ngay rey lii rek dina yaale yaayam mais damay rey lii bu ko defee kenn ñu xam ne am na doom mu rey lii bi mu la rey lii mu toog yàgg mu ne ko ah yow lii lu yaakaar ne dinaa ko rey yaay ji ay frère bu njëkkee danañ waxtaan ji rey mu ne ko kon rey yaay ji dem jeex mu rey yaay ji ak yéen bi boole leen suul jël aw xeer teg sa kaw gaa yi daal di ñibbi pisee ñu laajte anam góor gi jooy waaw wax wax wax xale bi dee naa te kon jaam ko yàlla xool jaamu yàlla sax taxul mu mucc mu leen di mucc ñoom it ñu gëm ko dem ci mbàmmeel ba ñaar ko dem seen yoon ñu tëdd ko guddi iblis daal di leen ñëwal ni yéen dégg naa waa ji nee na waa ji daal nee day fen de day fen de teewul bi moo ko rey te ngeen ko suul ci barab sàngam bu ngeen ko suulee gis ko ñoom ñett ñëpp ñu yéeroon génn gis ko ci gën a mag mu ne ah déedéet loolu moom instant loolu waxi seetaan la ci gën a ndaw ni déedéet man de kaw nga xoole gaa yi toog mu ñëw sulli ko fekk lii maag kii yëpp nëkk ba fekk di am gaa yi daal di ñëw pour jël góor gi àndal ko ray iblis dikk ni ko gis na benn bi ma defee moom boo ma ci toppee ba man xam nga ni gëw ma weddi yàlla ko loolu weddi ko nga yàlla nga am technique yi ma am mu ne ko kon weddi naa yàlla foofu rek ci la di xool ci kii rek ci la dee xool fa tàmbale ci jàmm yàlla ku nga indi ci mën a góorgóorlu fekk ci biir ñu daal kon koy xaar fittu njox fittu njox gis nga fittu njox ci bunt yi gën a garaw yi iblis di jaar di yàqal da ngay nekk ak sa morom ci biir kër gi moo xam sa wujj la moo xam ila axiri seytaane moo fi leen jortuloo gis nga lenn lu ndaw lu mu tuuti tuuti ba toll ni mu këy dina ko ngasal ba def ko baax fekk li mu ci jublu mooy ngir seen diggante yàlla moo tax kon aaya bi mbokk yi aaya la joo xam ci mata bàyyi xel iblis akum njabootam ndax nit mën naa takk ci jinne wala déet borom xam-xam ñu ngi koy wax waaye déedéet li am daal mooy comme salaf saalih saxaaba yeeg taabiu la ñoom daawul demante ci ay jinne ci nit la am mooy nit ñi takk ci nit ñi jinne takk ci jinne dafa anam bàyyi doon ko suñu borom bàyyi woon foofu benn masala la xam nga iblis gën a bëgg marché war ak àll bu wéet yéen ci yàlla dañuy ne marché mooy place publique marché mooy place publique moo tax ñu bëgg booy dem marché nga xam ñaar marché bi ko ñaan nga war ak boo gisee léeg-léeg ku seytaane jàpp day faral di bëgg dem ca wana wala tax parce que day bëgg ñu ko duggee Iblis daal di koy njëkk bu ko defee di wax ci fii te seet loolu léeg-léeg jinne jàpp kenn seytaane jàpp jàpp kenn jinne di saay saay muy dugg wana boo nekk dafa say dikk day bañ day bañ fekk Iblis moo ko koy def loolu am na jaamu ko yàlla yoo xam ne bu leen jàppee ñu ngi leen seen mooy sujud am na ñu dóor yoo xam ne seytaane ñu ngi ci koy boo sujud day mel ne dañuy dóor ay baal ci sa bopp lu ko waral mooy Iblis sujud mu gën a bañ looy defal mu ànd ko nga sujud ak palaat yi ñuy def mooy ci àll bi moo tax boo seetloo yeneen bi daan génn ci àll bi di waaraate di wax la kenn bu ñu jëndee ñu def te la ñu sami'naa qur'aanan ajaban ba dara ci boo gisee duggkatu xalwa yi ñuy gën a taamu àll bi loolu la bu xaa bayee duggkatu xalwa yi boo seetloo ñuy taamu am këri àll ak këri nangam loolu la parce que ñiy jëfandikoo seytaane seytaane yi kooku lañ gën a bàyyi iblis li ko jaaxal nag loo xam naka la moo xam moom mënu ko réglé ba tey mooy sellal iblis moom sellal moom da cee mënul dara xam nga li gars yi naan ah man de samay pexe jeex na ci leen rek xam nga ci sëy naa amul pexe Iblis moom boo teelalee moom jeexal rek xamul xamul ci lay jaar moo tax pexe moom mën na la ko def mën a fexe kon ala kulli xaal li ma bëgg a wax ci buntu boobu mooy Iblis ci boppam suñu noonu la comme ni ko suñu borom waxee moo tax suñu borom jox ci aaya ji ni wa id batlikum qulna bi ñu waxee lil malaayika ñeen malaayika usjudu li aadama sujudal leen aadama mu ni fasajadu ñoom ñëpp ñu sujud illa iblisa ba mu des Iblis moom boobu moom dong moo fi nekkoon kaana min al jinni dafa bokkoon ci jinne yi fa fasaqa mu génn topp def ak caay caayaan am rek bi ci mbiri borom subhanahu wa taala su dul waroon ni abada taxiduuna ndax da ngeen koy jàppee wa durriyatahu ak njabootam awliyaa ay péete maanaam ñu nekk loolu péete ndax yéen ba ñëw daal yàlla daan Iblis ah min duuni wali sama bopp man sama seen borom yàlla subhanahu wa taala su dul waroon ni bi sa doon naa ama tattaxiduunahu ndax da ngeen di jàppee Iblis wa durriyatahu ak njabootam awliyaa ay féete min duuni wali seen borom wa hum lakum te fekk ñoom dañ leen leen adu wa hum lakum adu fekk leen seeni noonu la inna cheytaana lakum adu fattaxiduuhu aduwwa suñu borom ni seen noonu la pour jàppee leen ko noon suñu borom ni bitta bon na li zaalimiina ñeel tooñkat yi badalan li nga xamante ni moom lañ remplacé maanaam remplacé yàlla dëkk bi yàlla moo waroon nekk sa péeti allah wali alladina amanu walladina kafaru awliyaahum taawut mooy iblis ci mbokkam ak fii ci am suñu borom ni bi sa bon na li zalimina ñeel tooñkat yi badalan li nga xamante ni moom mooy li ñu remplacé suñu borom ni ma ashraktuhum fekkeeloo gële woon ñoom shayatin yi xalqa samawati wal ard ñoom fekkeewuñ xalqa samawat sàkk bi suñu borom sàkk asamaan wal ardi ak sàkk gis ñu sàkk suuf wala xalqa anfusihim fekkewuñ sax bi leen seen borom di sàkk ñoom su borom ni wa ma kuntu nekkum man seen borom muttaxidal mudillina di sàkk jël ñi nga xam ne ñooy ñu sànq yi aabudan yu nekk ay dimbal kon suñu borom defut loolu kon doomu aadama bi ci biiram def loolu maanaam ñaari aaya yi lim luy wan mooy la yeneen aaya yoo wax mbokk yi ñu ba allah xëy na xoolal suñu borom bi wax alam aaxaani ilaykum yaa banii aadama la taamul shaytaan xanaa wax nga leen woon doomu aadama yi gis nga li may wax ñu ngi nii xanaa wax nga leen bu leen jaamu seytaane innahu lakum aduwwun mubiin seen noonu la wa an u'buduunii ba leen a jaamu haadaa siraatul mustaqiim yoon wi jub wàllu léegi nag comme laa ko jël haadihi jahannam allatii kuntum tuu'aduun waaye bi nga xamante ni yàlla da ko dimbalee bu nga xam lii di góorgóorlu ci sellal di topp sunna di góorgóorlu ci topp njàngalay salafu saalih tey ñaan yàlla musal ci seytaane te sàmm ay askaaram subaa la lay dikk ngoonal la lay dikk mbaam ci rab yi nga xam ni bu ñu naaxee xam ne dañoo gis seytaane la kon musuñu ci seytaane xaj bi ñëw seytaane la comme ni ko yéen suñu waxee sax moo tax bu jaaree sa kanam booy julli si julli bi yàqu na amul defaraat yàqu na gis nga kon yooyu nga xam ko bu baax seytaane dafay yàqalaate yooyu nga ci musul ci yàlla subhanahu wa taala sàmm teg say askar xanaa xam nga jabar nit mën nañ kaa jabar te fekk nit jabaru fekk seytaane ci moom moo ko jabar est ce que xam ngeen loolu nit mën nañ koy jabar fekk du moroomu nit biir na ni day koo jabar waaye du borom nitam moo ko jabar seytaane moo ko jabar nag jabar lan naa jàpp waajoo xam ne ku jàmbaare la ku góorgóorlu ci sunna la waaw waaw lu say teg taw yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ngeen fàtte ne yonent bi wér na ci sunna bi ñu ko jàpp ci commencement bi balaa ko yàlla wax walaaw yaasuñu ko mel ne la muy nit ñu aatul da koo jabar ba jabar di jàpp ñu jël ko tàbbal ko def ko ci pañe tàbbal ko ci teer ba ñaari malaaka ñëw kii toog ci tànk yi kii toog ci bopp bi benn malaaka naan war a law kii lu ko dal mu ne ko lan koo jabar ku ko jabar mu ne ko diw ñoom ñu malaaka ñooy waxtaan yéen si biir noo ngi tëdd di déglu rek benn malaaka bi ne waa kii lu ko dal kii rek da leen ko jabar ku ko jabar mu ne ko la bi dina am kii lu ko jabar dafa def ci peñe dem koy tàmbal ci biir teen ba teen ba lu mel daa mel ni comme ndox mu tëdd ñu daal di fay dem daal di gis gis ngeen yéen ci yàlla seytaane mën na sa yaram di ñeewi sa tànk maa ngi leen di seytaane mën naa dugg ci biiru jigéen bi sax toog ci biiru kaay la ndaw si am doom nga nekk daa koy rek da da da da iblis la ko nekk kàcc coon bi doom gis nga mën naa ñëw toog sa fii da am problème mu nooy nga dem xuma cardiologie ngeen koy wax ñëpp def analyse yëpp analyse yi def yëpp ñu ni positif la baax na te ba léegi lii nekk li ngi nekk iblis waaye nag iblis mën naa njabara njabara njabara njabar waaye njabar ba yàq sa ngëm yàlla nag mënta nekk loolu ahlu sunna wal jamaa ñu mënta yàq sa ngëm yàlla mën na laa sonal nag fitna la gis ngeen yéen ci yàlla ayub boobu feebar na dix huit ans dix huit ans yi dafa la ko waral anni masani shaytaan bi yusbil ba'da feebar boo xam ne shaytaan yi moo ko na suñu borom daal di koy saafara maanaam shaytaan la jaaree ginnaaw dogal suñu borom kon yëgee ni mboolem feebar yi dale tey iblis mën na jëlee participation bu rëy nit ki mën na am lu koy métti tànkam di néew wala wala bopp wala boppam sax dégg ci ceeb yëpp seen aadama koy def waaye jul bi gëm yàlla day gëm ni yàlla rek mooy dogal mbooleem loo jàpp ni lii kat su ko nit ci defee day def jàngale yéen rawatina yàlla kaa nga di ko def di bëri loo jàngal Alquran mbokk yi dinañ jàngal Alquran fa ida qara'ta alqurana ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axirati hijaban boo jàngal fan yàlla day jël benn barrage def ko sa diggante seytaan yi dugg ndax waaw waaye boo dul jàng booy tëdd li ñu am léegi taay taay la mën naa bàyyi ba ngay tëdd mu ñëw jël ay puso wala ki leen sa sànni ko sa kaw la loolu tax yéen yàlla bi ne booy tëdd na nga yëg sunna nee na boo amee ay xal booy jël bayal xal yi iblis mën naa ñëw yabal aw la rab yi fay benn xal ñu def ko salal lan nag yooyu yëpp da koy def yëpp da koy def moo tax sunna di bëgg bu timis jotee nañ tëdd xale yi parce que jamono jënd seytaane yu wasaare gis nga mbirum seytaane buñ ci doon wax dama yaakaar ne suñu bind yi gisul yëpp mën nañ cee wax te du jeex day soppeeku te day sàcc nag ñaari nit mën nañ nekk ci biir kër nga tëj sa néeg fekk fa vingt cinq mille jox sa wuti caabi bi ni ko teel ma dem marché te ñëw ku fi dugg kenn ku ñëw fekk xam nga lu mu def daa bëgg kenn soo ñu jiwee ba sàcc kii la sàcc ci biir day sàcc day sàcc mu wóor ñu ne loolu lii bi ma koy dee kenn gisu ko suuf te koo kenn gisu ko ko diw kon dina ko xaaj fekk iblis moo ko sàcc fekk moom soxlawul xaalis te kat ah kay soxla na ko ndax luxuskat yi iblis bi leen di luxusal beneen di sàccal ci biir luxuskat bi toog iblis mën naa ñëw dem ci banque ba sàcc fa quatre millions banque bi def ay lu sax xamuñu fu mu jógee def iblis dafa sàcc léegi day dem joxe ko bàyyi jiw su ko defee nag bu ko defee coow daal tànk ci kër gi yow laa joxoon sama caabi yaa ko jël yaa ko nangam moo tax boo dégg ci waxal bismillah bismillah bokk na ci masalay jaaxal iblis yéen ci yàlla bi jox na Abu Hurayra daan lay tàndarma ni ko dencal ma ko Abu Hurayra toog ba guddi lu jëf Abu Hurayra bi seen benn waay bu mel ni muus Abu Hurayra wax ma ne kon nit tey ni ki iblis la mu ne ko yow loolu fii mu ne ko man xam nga dama am ay njaboot samay doom dañoo sonn dama jaaxle fii dimbali ma baal ma Abu Hurayra ne ko yow ci yonent bi laa la yow mu ne ko dimbali ma nga baal sama njaboot yi mu naa ñu koy baal bi Abu Hurayra jikkee nekk li ko yonent bi Abu Hurayra ba léegi xamul ni Iblis la def ñu ko dikkee yonent bi yonent bi ne ko ah saay saay bi dana dellu si waat ci guddi gi Abu Hurayra romb waat ko seen ak waa ji di ñëw mu daw la ne ko nit kee ni ko dinaa la yóbbu ci yonent bi waa ji sarpooti ba mu bàyyi ko Abu Hurayra ñëw ñu si li ko yonent bi yonent bi ne ko saay saay la dana dellu si waat bi Abu Hurayra ba mu dellu si waat fekk ko fi ñu ngi dellu si waat ci Abu Hurayra ne ko ni ni ko gis moom du ma la déglu loo ma mën di wax du ma la déglu tey moom ci yonent bi rek tey Iblis ni ko nag kon tey ma wax la loolu kenn mës ta wax gis nga am man may Iblis am na benn aaya boo xam ne boo koy jàng ci alquran bu dee suba nga ko jàng ba ngoon jot Iblis day ñëw xam-xam dara la du la mën a dara bu dee guddi nga ko jàng te day ñëw xam-xam dara du la mën a dara mu ne ko mu ne ko ayatul kursi Abu Hurayra ñu ñetti ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi ne ko sadaqa wa huwa kadib kàccikat bi da wax la dëgg tey loolu tax borom xam-xam yi waxe ndekete nit du caagin tey moom rek ngeen du ma jël dara mën ngaa def loolu nit ku wax ci bidaa waaye am na lu mu wax lu am njëriñ jël ko iblis sax yu mu am njëriñ jël ko bàyyi bàyyi ko saay saay kon ndeke ay ci ci saa boo xëyee bokk na ci sunu la jàng ko góor ci nga jàng benn bis yéen sa salam mas naa taxaw di julli kàbbaa iblis jël xalu safara ñëw rek tiimale ko ci julli yéen ci daal di def nii loxo bi yóotu rek téye nag di kot saxaaba yi moom kii koy def nii yéen ci pare saxaaba yi laaj ko mu ne nii iblis moo ñëwoon di bëgg a lakk sama kanam bi ndax bañ ma julli waaye ma ne kon nii ndatt ko dama koo xot ba mu yut sama baaraam bi maa ngi nii yëpp seen daal yu tay mun su ñu woon a ñaanal Souleymane la dama koy yéel ci poto jàkka yi ba xale yi ñoom ne leen kay leen seetaan maam iblis pour ñu ay njëriñ yoo xam ne jullit bi war na koo xam su ko defee rek jaarul nit ki nag mu jéem a jàng mu xam sunna laaj borom xam-xam yi dañ lay def mu nit gët mu ci mu ci seetaan ak ay yàqala kon lu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq yàlla yàlla musal ñu ci seetaan ak ay pexeem yàlla borom subhanahu wa taala bañ koo defal benn cër suñuy wax ak suñuy jëf wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi